yéen bu baax a baax a baax ah euh, di nuyu Moustapha gis naa la age ah, Moustapha mu baax mi moo ko moroog am di mignon am di na nga préparé demain ndaxte yow la ñu invité am di mignon incha allahu rabi foog nga bégal nu ci ay léeb yu neex alors les amis il était là l'autre jour l'autre fois ça fait à peine sept mois Euh, te gis ngeen ni mu fi defoon fii ci Parc des Princes daanoom boobu noonu ñaanunu ko yàlla tey tey na way rek ndaxte nee na ma indi kooka la mun ñu ni ko waylu wayli bi kooku nga xamante ni macha allah il n'est plus à présenter sur la toile les amis un instant voici un garçon pétri de talent hors pair également un garçon trop même aimé euh, par les Sénégalais un euh, pour votre plaisir voici à même Ouzin Keita Alaaji Bàcciri wan ko sa bopp Ouzin demal ñu àdduna àdduna betu ngama dunia safato dimna la àdduna betu ngama دنيا صفاتو ما سنا àdduna bett nga ma duniya safatoo ma simnaal bakkan bu ñoom dund bakkan bu dee sunu papa Papa Thione àdduna àdduna seen duniya safatoo ma duniya àdduna bett nga ma duniya safatoo ma naa la sunu papa papa coor maa jaale di jaale Wally di jaare Farba Seck di jaare Seydina Aline bu dekk doon am man Ouzin Keita kon du dem maa ngi koy ñaan yàlla yàlla suuf oyof si kawam si bakke Seydina Muhammad salawa salaam àdduna bett nga ma duniya safa tooma dina la àdduna du dara doomu aadama day dox yenn saa nama dunia safato masibnala ah lu mënta ñàkk foog mu am. ndeysaan mën nga wax fii ci beneen. lu mënta ñàkk foog mu am. waaw waaw suñu papa. waaw suñu xarit muy papa Thion. ndeysaan. maa nga ñaan yàlla yal na suuf ayam si kawam. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi si bakke Seydina Mohamed. amiin hmm. na si kawam. si bakke sang-sang yi. amiin en tout ñi ngi lay nuyu di la kontaane. maa ngi kontaan xasaa euh, ndax xam naa fi nga dugg see tey daw na yaram. donte sax way wi ndeysaan euh, daw na yaram ndaxte way la woo xamante ni xam naa ne sa xol nga ko tibbee ndax ne woon nga ma démb su may ñëw euh, foog ma euh, rendre hommage sama papa ma ni la kan nga ne ma papa coon kon maa ngi ciy kontaan di la bàyyi nga nuyanteeg téléspectateurs yi ba noppi ñu daal di ambiance waaw maa ngi nuyu ñëpp ku nekk turam asantam hmm. di xasaa di la di wax yow sama